Car Sonko yaakaar nga dina doon candidat. ndax Sonko dina nek candidat. mom annoncé la candidature mais est-ce que ñom dinañ ko baye mu mu pose li nga xamanteni ne moom candidature parce qu'il y' a aussi Adissa proche Adissa bo xamni c'est ne ci appel à restitution bu ñu bu ci dossier bi. waaw le cas de et le problème de Sonko c'est un autre problème Hein? donc euh, me guise Il y aura procès C'est une autre bataille. mais est-ce que Sonko na defaru D'accord. mais ne na defaru parce que Sonko euh, Sonko est un justiciable comme tout le monde donc euh, les gens vont le convoquer ça c'est sûr mais est-ce qu'après, ah, il y a un candidature Je condamné candidat mais est-ce que l'on Sénégalais est sans di di nous tout c'est à la guerre comme à la guerre hein. c'est à la guerre comme à la guerre hein, c'est des problèmes qui sont là et puis euh, Sonko doole bu mu am kenn mënu ko ñun ñii yëpp xam nañ ko am na doole. parce que tey li xew assemblée nationale yeewi askan bi moo tax. Hein, et que am na chance ba askan bi jublu si moom. léegi le fait que Barthélémy Dias tey première condamnation bi ñu ko def te mu purgé lépp. ñu ñu ñu ñu ñu validé waat c'est pour calmer les jeux. su leen neexoon yokk ko. su leen neexoon tey. Il y a condamnation mais mhm. mais dañuy calmer le jeu Moi, ah, je pense que l'État actuellement est dans une position de de calmer le jeu mhm. maintenant qui vivra verra euh, finalement l'histoire du Sénégal de 2022 et de 2023 et de 2024 sera très très intéressant mm -hmm. épisode sont comme des léegi fu mu ne nii xam les épisode Barthélémy Diaz passé na ba mhm. ñuy ay en cassation ça peut prendre des années d'accord ça peut prendre des années

jéem na wax na di bokk li nga ni da nga mel ni que ba nga bëgg wax ne jeunesse bi léegi dañoo dañoo dañoo dañoo mûrir donc. ndox bi ndox beaucoup ndox ndox bi dilué na bissaab bi <laughs> fu mu ne nii bisaab bi lewet na de foroxul de. foroxul na toll nag mois de mars bay passé fu mu ne nii si diggante bi noonu rax nañ si ndox. yaakaar nga lool. ma ne si diggante bi rax nañ si ndox

kon la nga bëgg wax Macky Sall defaroon na daal en tout cas pour en cas yooyu bu amaatee. Macky Macky Sall du ma dafa mag dafa pare pour xeex. Macky Sall bi ma gis ak entourage bi dañoo pare pour xeex maintenant yëfu dof yu waas yooyu sa askan bi commencé di def assemblée nationale ba askan bi commencé leen jéppi su su continuer noonu du ma di dinañ daanu de waaye Macky Sall dina leen dina leen dina leen dominer ça ne veut pas dire que Macky Sall day gagné Macky Sall pour mu gagné présidentielle en 2024. ça sera pas facile Il des day des loo xam extraordinaire. du gouvernement euh, Amadou Ba Macky Sall pouvoir il a perdu la confiance des Sénégalais. il a néewal les kon au dos doole jigéen ñi génn si xam nga Mimi des candidat à la présidentielle

te qu'on n'est pas sûr de participer à la présidentielle. pourquoi on n'est pas sûr. su su a les chances su comme am les chances. nous perdre procès Nous condamner mais que nous condamner doo candidat à la présidentielle. Je mm-hmm. nga sommes mu ne nii état bi loolu les ruumandaat le mm-hmm. donc procès avant 2024 ou procès après 2024.

gis nga suppléants yi léegi actuellement ñu commencé am visibilité uh-huh. ah parce que Sénégal ñëpp ko bokk Sénégal ñi ñëpp ko bokk léegi qu'est-ce qui va se passer en 2024 mais Sonko moom bu bokkulee dina leen arrangé yéen ñëpp ma ne dinañu arrangé ndax ndax moo moo yor réew mi nag ma ne Sonko su bokkulee ndax dinañu arrangé ñëpp dina arrangé tous les autres candidats uh-huh. waaw dina arrangé tous les autres candidats mais Macky Sall moom même su jëlee xat fa xulfa marabu marabu yu gëna force si monde bi ha <laughs> ah, premier tour moom mënu ko gañe mënu ko gagné mu ko ci àddina kon la deuxième tour nak su ko gañee nga xamné ne du dëggal kon yow japp nga né da avec ak sonku li fi xew problème Adji Sarr dal du bokk japp nga né du bokk dama ne wa su gagné procès mun na gagné procès Sonko mën na gagné procès. mais dafa amaat euh, dossier bi yeneen yu su yu si yu si toppaat. comme appel à l'insurrection bi. bañ koy bu ba mu buy ji euh, li fa amoon nag coow léegi yëpp ñu dolliwaat ci dossier appel à l'insurrection yooyu yëpp. foog mu am avocat dëgg pour gagné procès su ba su su naagoo ba foog a nekk suñ ko téyee askan bi day génn nax na boppam. mais am nañu taxaw ba tey de. ma nax na bu moo yow Sonko. su fekkee dafa ne su négligé défense am su négligé défense am du bokk si élection présidentielle bi ñëw tey sagar du xeeñ dara du xeeñ ci dëkk bi. non man moo ma gëm lool sagar. waaw kon yow tu Sonko. <laughs> non non non du ma tu Sonko mais. Mhm. Sonko su négligé non dafa dafa leer man faraluma kii faraluma kele comprendre man sama candidature moo ma ñor mhm. moom si boppam.

à suivre kon. su négligé défense ba daanu day naan day ba ba naagu laa wax fii ku fi naagu rek daanu nga. à suivre <laughs> bàyyi rek. voilà xibaar yi euh, tàggatoo nii daal. Sénégal bi daal yi ñëpp ko bokk muy góor mu jigéen. da ngay cër ku si nekk sa côté dangay ngay vigilant. Mm-hmm. yaa ngi may xool bëtu ko mën naa ba a bokk si présidentielle bii di ñëw. bem a mana bem bañ a bokk ci présidentielle bi di ñëw. <laughs> non néew ma su pertee procès du bokk ci présidentielle bi. processo sais bu o procès ak. waaw du bokk ci présidentielle bi su gañee presidência não day bokk ci présidentielle bi. Mhm. pas pas évident encore. mais mun na gagner parce que parce que ñoom jàpp nañ ne Adji Sarr mënu ko tëjee lenn parce que amul lenn loo xamante ni mu ngi téere lu dëgër ci moom. procès boobu dafa yàgg bu mujjee soof. Mhm. xam nga daa yàgg bu mujjee soof man bokk naa su ñu ne lii dafa yàgg bu mujjee soof

xam boobu lay wax naa ko ngay nekkee tête de liste tête de liste coalition Yewwi ngay nekk Ziguinchor di raxas ay canalisation bàyyi bàyyi sa liste euh, Déthié Fall et compagnie di lool la def dafa naagu woon moo tax bokk si législation kii bi naagu bu mu naagu yaakaaroon nga ko bàyyi si entre de de bon mais rek. mais non loolu man dinaa nekk tête de liste du ma nekk sama ma propre mandataire Sénégal bi soo nekkee tête sa nekkaloo sa propre mandataire daanu nga yow da nekk mandataire nekk si staff bi dara du la lis ma jàll soko batalé batalee rendi la maintenant lolo ko dal lolo ko dal motax au fond de son salon si c'est ce qui se passe à l'assemblée mené man ma tok ni de bokk ma assemblée nationale ay gui may sanga ay console nek fi ay waaj di ne àddina moo gën ngay salon bu gis désordre bi fi nek ni té euh, après bon il va se calmer pour dire que je dirai aux gens écoute euh, je suis contre les cumuls de mandat quoi il y a aucun problème je m'occupe de Ziguinchor élec kii bi élection bi kii ñi ko xate procès bi di ñëw su ko su ko su ko su ko fulaalee yàlla mën na ko si mbay ndam su ko fulaalulee du am ndam te su amulee ndam au revoir wi bu boobaa beneen yeneen candidat ñoom ñoom ñooy ñooy dem mais du nekk moom